حسن الإله canta ngërëm laa di doore nuyoo ci jàmbaar ja jaaxal kudul rabbana ci canta ngërëm laa di doore nuyoo ci jàmbaar ja jaaxal kudul rabbana këjël Mustafa def mu gën ci mindeef tofal Bamba xatinam mu boole ki koomam jëfal seexu na xaddiimun xaddiim ibni xaadimu rasuul sëriñ abdulaat mbàkke moom wàcc na xaddiimun xaddiim ibni xaadimu rasuul sëriñ abdulaat mbàkke moom wàcc na li saytaane bon bon te dib yàqkat fa lay romb say jëf azal naagu na baab jant fenke ku dib sàcc toog te naa feq yéefër bilay jekki na ku daw wuy ji sa moom raw na tey ku diingat lu tuut tuut mbiram yàqu naa ni mboole am li ngay digle ngir yàlla la li ngay aaye mooy lor ku bañ gaañu naa sëriñ baa ko mandal ci bahrul ulum musut jépp alim gisoon ngeen xanaa bu daa wax da cay waar ñi jeel fal ni xam ni jaayil bu jàngul du ak neen xanaa ba mboole am jullit ñaa ngi jàppi waxam mu leen cay defar ay waxam yeete naa niteel nit ba muy nit ba xam moo di kan di sellal jëfam jërë ngeen jëf mbokk téléspectateurs yi liggéey baa ngoog nu bàyyi ko ci kër Serigne Cheikhouna Mbacké moom Cheikh Abdoulaye Lahat noo ngi fii jàkkaarloo ak Serigne Dat Mbacké moom Cheikh Abdoulaye Lahat nu ko fekk ko fii ci Aliya gis ngeen ko moom it siyaar beeg liggéey bi noonu la demee ci télévision ma fàccoxoon Bichri nit ñi bàyyi ci ay dox gox yu fasanti ko ngir siyaare ko ci bisub baayam bu baax bi sëriñ daan baax lool moo ngi ñaan suñu borom guddalaw fanam te yàggal ko fi Cheikh Mouhamed kon ma bàyyi la nga wane liggéey bi mu toftal ca ay waame moom rabbana ni yërmande jaa tax ndoxum taw di rot te yërmande jaa tax mu ñëw seexu naa fexeel kon ba yërmande yóbbaale la mu lay romb ngay réccu dug càgganaa tegal aw ñamam ndox satal say loxo dëdul neexal wee sooti xarit iftu naa tegal aw ñamam ndox satal say loxo dëdul neexa weesu xarit iftu naa lu jar dee si wax nag dëdul nekkati gannaaw ay waxam ay waxam yegg naa damay dellu ñaan yàlla ñaan muntaxaa mu doon seen ngëneel ak mbégum rabbana damay dellu ñaan yàlla ñaan muntaxa mu doon seen ngëneel ak mbégum rabbana li gën cib jullit saahiran baatinan defal noona yaa xam dunun seexu naa bu nuy dund yaanu moom te bu nu deemu raw fabal mbir yi ci moom ba dem ajjana mbokk yi gis ngeen ko noonu kookuy saafonteeg sëriñ bi mooy sëriñ Abibu Mbàkkeem sëriñ Fàddilu doomi Cheikh Modou Fadal jàmbar ja moo ñëw ndokk si mbokk boppam mii di wëllëreem di xaritam nu bokk lépp ci bis bi rafet na lool macha allah Mbacke Balla sëriñ Abibou Ngoog na fi yàgg lool te wér Cheikh Mahmoud Lemine kooku nuyoo mooy sëriñ Abibou Mbacke moom sëriñ Fadilou Yàlla saa ci sa digg diggante eh, sëñ Abdou Lahat ak Daaru ci diggante sëñ Tuubaa ak Daaru ak sa diggante ak sëñ Mouhamadan mi nga xam ni tey eh, fii nga yendu ànd ak moom màggal gi auzu billaahi mina sheytaani rajiim bismillaahi rahmaani rahiim bismillaahi rahmaani rabbi israh li sadri wahlul yassir li amri wahlul uqdatan min lisaani yafqahu qawli asalaamaaleykum wa wa barakaatu bokki jullit yi bokki taal bi ñu ngi leen di nuyu kenn ku ci ci turam ak santam euh, di am mbégte ci bis bi di am mbégte ci fekk gi ñu fekk ci kër sëriñ Mahamadan moom sëriñ Abdou Lahad ndax euh, jàpp naa ne bisu sëriñ Abdou Lahad moom bu amee bisu yoonu murid yëpp la ndax euh, am na koo xam ne tey bi ñu jógee kër sëriñ Moussa am sëriñ Abdou Lahad dama ko ne sëriñ Abdou Lahad dafa def loo xam ne ci yoonu murid mhm. dafay yoonu murid nga am rek jëfe sëriñ Abdou Lahad nit ñi di ko wax ndax da koo jëf li ñuy wax euh, tëggaat yoon wi teg ko ci raay bi suñu blaat da koo def mm-hmm. ba tax na li fekk yoonu murit nga am rek ay jëfam nit ñi di ko wax di ko tudd mm-hmm. suñ Mahmadan mi nga xam tey ñoo ngi nii ci këram itam di kenn ci man di kenn ci njabootu Daaru Muuti di kenn njabootu Sëriñ Tuubaa gi ci dëkk bi mm-hmm. ci ak woyefam ak baaxam ak mën a maslaa ak kenn ku ne itam day sa yite mu di ko ànd ak yow looloo tax bis bu màggalu suñu blaat gi ñëwee tamit ñëpp kenn ku ci ne da ngay bàyyi sa yitte ñëw ànd ak moom ndax suñu dan moo mel noonu boo seetee ñii fan yi yëpp dama leen wax ne leen muy njaboot suñu Seex Xaadi bu ngeen xëyee na ngeen dem ci suñu Mahamadan ba mu yewi leen Ablaye Seck mi mooy seen jëwri jàpp ci liggéey bëgg fàllu mi seerale si ndax dama leen jàpp naa ne ngeen def ko fii ci këram ak ngeen def ko ci kër suñu Seex Xaadi amul différence ñoom ñi xam nañu sama diggante ak suñu dan xamoon nañ diggante sëriñ bi tam ak ak euh, Baye ndax man toog naa ba tàyyi siñ dan Baye Cheikh ne ko foofu yaa fay suñu ambassadeur ndax yaa fa yow lañ fa dubbee suñ Mahmadan bu xos loolu Baye Cheikh da ko daa wax toujours daanaka tam weer wu ne daana ñawlu ay yére yónnee ko Baye Cheikh même bu nekk yaataxaar wala fu mën a nekk rek daan daan nañ ko ñawlu ay yére di ko yónnee kon li li nga xam ne maanaam moo moo ñu fi dajale tey sabab yu bare bare am na ci te yaakaar naa fee ñu yendu ñu dëkkoon Daaru Musi yendu fa ak ñun bari na xëy na ñoom ñëpp dañoo de waaye fa ñu yendu néew fees na del Euh, sëñ Mahamad itam wax na suñ kóllëre li ko li ko li ko sabab ak ni ñu koy toppatoo ndax man leen léeg dinaa jóge daal mu si ñëw buntu këram bi fi laay toog ba heure mu bëggee wañeeku damay delluwaat daar mu si du ma jaar fenn ñu jaxasoo nag ci lu bare bare bu toogee ñaari fan dégguma sax dana ma woo ne ma ñaari fan yi wóotuñ mbaa jàmm na ma ne su ma toogee ñaari fan moo ko déggul maa ko maa koy njëkk a woo sax laaj ko ci luñ euh, xëy na moo ma féete mag waaye li mu wax léegi rek maanaam mu loolu lay doxal yéen a bokk aw doxin bu la bu la magee wala muy bàyyi ci yow itam morom la lay jàppe mm-hmm. bi mu ko waxee ci néeg bi itam man mën naa seere loolu mu wax itam mooy leen ci moom nit ku baax la ku bëgg lu baax la kuy dox ak bokk ci dëkk bi lu nar a yàqu tam ci dëkk bi bu ko bu ko xamee dana ci dana solu dalam dox ba loola du am mm-hmm. kon nag liñ li ñuy def rek ñaanal ko rek yàlla yàggal ko fi te yoon liggéey bi nga xam ne suñu Abdoulaye liggéey na ko yàlla jotal leen ci barke bi ñoom ñëpp ak njabootu Sëriñ Abdoulaye ndax wax yàlla njabootu Sëriñ Abdoulaye dama leen naw ci ak taali bi ñoom ñëpp nag ak woyof man ñi ma ci xam ñëpp dama leen naw ci loolu di ko rey ci ñoom jàpp ko ci ñoom suñu Mahamada nag mënu maa wax ci lu bari ndax sama diggante moom dañoo dañoo jaxasu mu ëpp daal am na loo xam ne sax bu ma koy wax ci moom boo xamul la nga yaakaar ne ak xarit sax may wax waaye daal suñu Mahamada nit ku baax ci fànn yëpp nag ñoo ngi koy ñaanal yàgg ñëw ci màggal yàgg ko fekke te liggéey bi muy liggéey Sëriñ Tuubaa ci dëkk bi tam nga xam ne man am na lu ma ci xam yàlla kàttanal ko ba liggéey boobu jëm kanam ndax fii boo fi ñëwee kenn ku ne fi ñëw te ñi fi ñëwee itam kenn ku ci ne am nga foo jëm kenn ku ne am ngay soxla xëy na nag ubbil gum ubbil boppam nit ñi ba nit ñi ñeme ko moo tax kenn ku ci bu soñoon di ñëw di di fekke ab jataayam te ab jataayam njariñ rek moo ci ne wax dëgg yàlla Mbàkke lii moom sama laaju bopp la mbubb mii nga sol nga xam ne boo ko soloon tey ca sax wala nga gis ab tubaab sol ko sax danga naan sol na bàyyilaat eh, ñu gis ne da dafa taqoo ak yow. Eh, lan moo tax maanaam ñëpp nga xam ni culture yoonu murid la nga koy sàmmale si ñablaat ana lan mooy sabab bi daal bëgg nañ ko xam ndax it fii nga ko yemale am bitim réew am foo jëm ak yooyu daal bëggoon nañ ko. <laughs> waaw léeg-léeg moom lii moom lii dama jëm bari ay mbubb yu bare bare bare bare <laughs> xam naa ni en tout cas kenn du ko sol daal ñu ne ñu laaj loo doon. <laughs> maanaam ndax man mosuma gis kenn ku dul ab taalibe bi sol maa nii nii ak maxtu meeg mbaxana meeg lii mbaxana moom damaa gis Baye Cheikh Khady bëggoon mbaxana mu looloo tax mu bëgg mbaxana mi <laughs> ndax Baye Cheikh Khady yaakaar naa mbaxana yi li ci ëpp daawul sol mel ne mbaxana mu mm-hmm. bu njëkk sax man daawuma sol mbaxana waaye looloo tax ma ma bëgg mbaxana mm-hmm. lii itam toll suñu blaat mm-hmm. waaw moo tax te dégg naa a wax ne fu ngeen dem ku leen seen na xam li ngeen doon bu ak bu ak see ci ba ngeen wax moom na xam ne ay murit ngeen waaw ah, loolu suñu laat moo ko daa wax te lii moom ko sol ne dañ xam ni ab murid ndax mosuma kenn ku dul mu di ko sol waaw <laughs> daa mel mu ëpp ci sa yére waaw dama ceeru xamun mënu ma ko sol léeg-léeg naa ñaw lu yu bees sax maanaam ba may ko du ma ko sol daa nekk col gu ma neex daal ndax dafa murid day sunu col daal te itam euh, nit ki bokk na ci liñ lay respecté ndax euh, boo seetee yére yi ci ëpp dañ koo jëggaane bitim réew mais lii nag ñun ñoo ko fent ñoo ko moom fii fii rek la dëkk dëkkul feneen rafet na itam waaw ah, te rafet na <laughs> jërëjëf Mbacke mbokk téléspectateurs yi nuwee di leen toppal màggaluk Cheikh Abdoulahi laxat topp njaboot kam gi di leen siyaar beeg si ci fii nga xam ni mooy kër sëriñ Saalihu Mbakke moom sëriñ Abdoulahi Lahat waaye nag nu fokk fi mbokkam mbokkum boppam mii nga xam ni mooy sëriñ Thierno Gelo Ngor ñëpp xam ko ci liggéeyub sëñ Touba mu fa yéenee yëkkati ay kaddu di bind bu mu ñu dénk jëmm ji nuy fàttali ko tey di Cheikh Abdou laxat nu maa si déglu. mbokki jullit yi ñu fekk mbokki teere bi ñoo ngi leen di nuyu yéen ñëpp kenn ku leen ci turam ak santam. ci daje te di leen sant ci daje gi ngeen fi daje tey te lislaam rek dajal leen fi di jiital ci nuyoo bi nag Seydi Moxtaar mi nga xam ne mooy jëw yi ñu yoonu mu tey sama borom guddalu fanam wéerali ci ren te àggale yéenee ci teg say Sëriñ Sidi Mbacke mi nga xam ne mooy kilifa kër gii di kër Sëriñ Abdou Lahad tey mooy jëwriñu kër gi ak rakam yëpp nag ñuy waxee wax ji nag fii ci kër Serigne Saalihu Mbakke mi nga xam ne Cheikh Abdoul Ahad da ko duppee mbokkoom mu baax ma di Serigne Saalihu Mbakke mi nga xam ne moom it bëkk démb rek la fi jógee yàlla sama borom dolli leeram te wax dëgg yàlla moom mii di Serigne Saalihu mi ñu tuddee Serigne turandoo dafa am solo lool daa jël ci aw turandoom lu bari te ko nuru ba nuru ko lool ay jikko ak i jëfin ab yar ak i teggin ak ak taalibe bis bii nga xam ne dañ koy màggal nag di bisu Cheikh Abdou Lahad ma ne su ko ñàkk tudde bisu sëñ Abdou Lahad waaye bisu sëñ Touba la màggalu yi ndax bis bi sëñ Touba ko jëkk a tudd ci làmmiñam te moo ko jëkk a màggal moo woo mag ñoo xam ne ay bokkam lañ ci saayir ba noppi mu yar leen ne leen damay bëgg am gan goo xam ne lam ci wax am na ci ñoo xam ne sax dañuy wax waaye lam ca wax dafa wax ne maa ngi bëgg am gan goog ku ko gën mosu fee ñëw loolu la ñu ko wax de ma bëgg na ku ko fekke ci yéen ku mën a doon te fekke bi liggéeyam na koo ko taxaw li tax ma dee leen ko sant nag dama am si moom yaakaar yaakaar yi sëñ Tuubaa nag du yaakaar yàqin la sëñ Tuubaa lu mu yaakaar lay am las baam yaakaaroon ci moom lépp li Cheikh Abdoulaye Lahat nag yaakaari sëñ Tuubaa moom ci diggam ak yàlla kenn daa a fu mu tàmbalee ba mu fa mem dafa jaxasoo ak yàlla lool waaye daal yaakaar ja day bu fekkoonte ne day yaakaar yi jooxane yi yaakaar yi nit ñi rek la day kon nu defe na yaakaar yi sëñ Abdoulaye jooyu lam ca yaakaaroon weesu na ko ndax sëñ Abdou fekkoon baayam teg fa lislaam magam yee jiitu teg ko fa ñambaas na ko dundal na loola ba mu dund mu tegaate loo xam ne defe nañ ne kenn mënu cee tegaat la neen sëñ Tuubaa nag du jeex waaye lim ci lim fi def si su baax day bari na lool dundal na lislaam dundal na yoonu murit siggal na Serigne Touba ci ab liggéeyam ah wane na it ndami Serigne Touba njàmbaaram soli ko fépp dindi na fi yu bare yoo yi ah loola kenn jëppuloo ne dana fi mën joge jóge sanc na fa yoo xam ne yu baayam waxoon ca Matlabul Fawzayni la te bëggaloon ko boppam te ñaanoon ko borom te Sëñ Tuubaa lu ma sa ñaan yàlla yàlla defal na ko ko mag ñooñee ko jiitu ku te ne song nga def nga ca la nga man waaye daal yeesalaat na ko moom de tufulaat na ko a ah, ba loola nag tax na màggal bis boo xam ne dañ ko koy defal ko koy def màggal nga Serigne Touba màggal nga yonent bi sallallahu alayhi wa sallam te sëñ Abdou Lahad ci boppam danaa képp ku liggéeyal sëñ Bamba donga yee la war a fay nun nag nooy donga yi sëñ Bamba noo di taalibeem yoo xam ne yaakaar nañ moom kon bu suuf sëñ Abdou Lahad bu ñëwee ñëpp war nañ cee ñëw ñëpp war nañ cee def ñëpp war nañ cee wax lu baax ñëpp war nañ cee teew loolu moo war ñëpp kon nag noo ngi ñaan ci dara ji sëñ Bamba mi woote woon bis bii te santaane woon képp koo xam ne taxaw nga ci bis bii yal na sama borom faj sa aajo yëpp te jéggale say bàkkaar te defal la say bëgg-bëgg yëggan ci yow te musal la musal seen njaboot moom ñii nga xam ne tey daa bokk ci doomam yi nga xam ne na baayam sëñ Bamba yaakaare ko woon moom mii ni la ko baayam yaakaare ñekkul ci doomam jenn nag yaakaar moom sëñ Abdou Lahad ndax koo ne daa gën rek da koo gën a xam baa mu waaye ñoom ñëpp a baax amuñu benn benn benn ñoom ñëpp a maase ci ay yaru xam lañ war a xam juddoo fañ war a juddoo di jëf lañ war a jëf sëñ Tuubaa bi mu fi ñëw it rahmatan lil aalamiin doo nga ko féedi woon loolee nag ñeen nañu ci mar njabootu sëñ Abdou Lahad amut kenn ku yarati ko amut ci ñoom ku nay amut ci ñoom ku diis amut ci ñoom ku ñàkk taalibe amut ci ñoom ku jàmburiwut amut ci ñoom ku nanguwut a liggéey amut ci ñoom ah loolu rek laay wax te man mii wax nag du ma sibooru kenn ku yàlla bind ndax am naa ay ndam yoo xam ne dama caa gërëm yàlla ndax sama baay wax na ci lam làmmiñam ne moom lañ jëkk jox sëñ Bamba ci ko sant Mbàkke ah wax na ko de nee na Touba de maa fi jëkk waaw te bàyyi ma topp ci bàyyi bi sëñ Bamba it sëñ Mbàkke Kajoor mi ko juróo mooy rek moo rente sëñ ñoo bokk moo mambalaay si te ki jur ndeyi sëñ Omar Mbàkke mooy mag ki jur ndeyi sëñ Mourou Moussa ca topp ñoo bokk ndey ak bàyyi bàyyi mag bàyyi sëñ Touba bokk benn baay wow na ci kong la man mii wax nag ña may waxal de xam nañ ma xam na daañu ma xam ndax man day yi ma boole rek laa leen bëgg a wax musuma taxaw fa lislaam di aare hmm. te wattu naa alxuraan bu yàgg te benn sëriñ bu ma lëjal ci sa kër ba ma lëjal ci say dongo amul sëriñ bu ma mën a xaritoo loolu xaritoo xaritoo xaw ma kenn ku jéblu ci yow ndax ñi jéblu ci man daf maa doy kenn day lu ma ci xaritoo yow baa nu bokk nga gis sa taalibe bi mën naa Ceerno Mbàkke bi sañ Mbàkke sa jóge sa kër kenn mënu ko am ci yoonu murid yëpp loolu maa ko ñëwee wax kenn mësuma si nit ma taxawal islam daane te du ma jabar kenn mësuma weexal du ma politicien bay dong mu def waaw ak jàng ak julli foofu rek laa waaye lu ma sëriñ ëppale ñëwu ma la ca ndax bala na ñooñu lañ ma ëppalee dañoo man lu ma jomb waaye bay dong ak jàng alxuraan dong ak yem fa nga war a yem la nga war a wax yóotuwoo fenn lenn ku mën a doon kaay rek moo ma seetee moo jeelee nga dese tuuti <laughs> ah laa fa de te lu ma sëriñ bi ëppale fii mi ne lu mën a doon am booy doo nga la doo ko jëriñoo hmm. am na ay daara am na ay dagg am na ay dëru am na ay dëyër te la julu ma kenn benn télé ba jàmbur boo xam dana waaw loolu daal man ñu ko te it li ma xam ci dëkk bi moo ko waxoon tabax bi fekk lu fi léegi te kenn mënu maa mere ba waxal ma dara loo xam ne lislaam da ko ay kenn mënu ko loolu nag sant naa ci yàlla kon nag ku ma bedd di la sant laa sant daa koo gis waaye ragal la ba bëgg ci yow dara taw ah foofu day daane waaw noonu laa nag waaye sëñ Abdoulaye daal ah maa tayi sëñ Bamba la la sëñ Touba yaakaaram ci moom daal yàlla defal ko ci lu ko fay na ko ndax ma nga ne dëkk alxuraan te dëkk alxuraan jafe na lool ah waaw moo ko mos a wutal kërit sëñ Touba li muy réy réy fu ne ko moom nag waaye kër sëñ Bamba gi ñu teg ci loxo ci moom la tàmbalee te it mu bàyyiwul benn dërëm ngir doomam it doomam dundul dara de waaye laam njëriñ te nga xam ne ko doon doo ko jël day mooy barke ngërëm am nañ ko ñoom ñëpp te kenn gënu ci sa morom ñoom ñëpp a baax tudduma kaneen nag demuma faneen waxuma kaneen bis bii di sëñ Abdou daal ci laa wax ku ma wax loo sa baay ma wax ku ma wax loo ma bala neewoon naa nag baay jàmbur utuma ko tudd ndax gis naa la sama baay li may nettali ci moom la muy bari bari bari sëñ Omar sëñ Touba bériloo ko woon moom ñëpp bool ko ndaala sëñ Omar ne moom sañ Modou Moustapha sëñ Fallou ma ko wax ko nee na sa baay ak sëñ Modou bokk benn lal juróom-ñetti man mii di Fallou ak moo roqay bu so noo bokk ab lal juróom-ñetti ca benn néeg noo ko bokkoon kenn ku ne bindal na sëñ Touba ñaar fukki kaamil ak juróom-ñett ah, te sama baay la dee def rek def na ko bañ na ko ba lu yàgg yàgg yàgg am na ci saa nekku ca mm. waaye fa mu war a jëlee la jëlee ndax boobu ci kong ne doomi sëñ Bamba laa walo xanaa noo ñàkk solo noonu ba mënunoo jël doomi seen sëñ kenn waaye ñun suñ sëñ Bamba <laughs> suñ baay doomi sëñ Bamba te man mii nag lu may ñàkk-ñàkk solo sama yaay junniy bëri koy gerte lañ ko booleel mille neuf cent dix-neuf jëbal ko sëñ Tuubaa te sëñ Fallu sama day nee na ko man day balaay sax dama am lu ma jaaxal ba mu ñëwee gërëm ko sëñ Fallu ko lu man ko damaa yàgg sa kër mbokk mi am naa fi fukkee daw ma doom te benn doom boobu boobu laa fi am ah loola nag yow mii sëñ Tuubaa te ñëw fi tey yow laay wax ndax sama baay sëñ Tuubaa sëriñ te sama baay sama nday baayam ba yàlla sëñ Tuubaa juróom-ñetti junni bëri koy gerte boobu ñuy soow fii kenn ku ci maanaam juróom-ñetti bëri koy gerte mut yi taf li tax yëf yi naqare nag tey mooy di adduna déeyanteeg màggalanteeg lenn loo ci ne musu fee jóg waaye am na ñoo xam ne ba adduna sosoo ba jëntub tey musu ñoo fekkee lenn ndéy ku ñuy déy ku ne sa digga moom téeméer dana fa dox ñooñee nag bu ñu jekkee ba yoru déy baa ñooy déy lu nag baa loola lu ne neex man lañ ko def waaye sama baay dadaa wax ndogo yi nañ ko jox ña wooloon mooy dëgg kat boo xam ne ba dund sosoo ba fi mu ne yëfi li muy bari bari lenn goo fenn kat kon yëfi tey yi ku na am bu ci añaale kenn leen waaye sëñ Omar daal nee na ndogo yi nañ ko jox ña wooroon ndogo moom ña wooroon ko tax jóg hmm. te sëñ Moussa Ka nee na Serigne Omar Mbacke Serigne Massamba fukuraas yu baax yi ñuy dëkk ak Seex Bamba billaahi gis naa fu Serigne bi bindan wax ne ma samba ñooy dëkk man si nit ñi ba dégg na bu yàgg yàgg jékki bu leen ba tey di door a regg yéen a setoo maaram am ngeen sa déeti gër am yooyu yaaram buur yàlla moo leen def boroomi dara jaat yoo xam ne lu yàqu ñoo koy defaraat ah, ah? loolu day la ko wax wéetal nañu lislaami sëñ Tuuba ji kenn yu rëy lañu ci maarum wa ji te tey nag ah la yàlla xam doy na ah waaye nag sant nañ yàlla te sëñ Omar danaa wax na ngeen wattu taalibe yi nga xam bu ngeen toogee ñu toog bank seen i tànk di leen déglu na ngeen leen wattu la te banki tànk bëggulum xel nit ko booy wax ak mu di leen déglu loo ba ca wax jël gën a xam boo koy wax wax ko lu war wax ko lu wér wax ko lu wóor sëñ Tuubaa nag la wax moom mi sama dafa ne fu ngeen fu toogati ba asgoor fekk la fa ne la aslamtu nafsi dama bëgg na nga góorgóorlu ba fa ànd bay mën a yem bu mu xamante loo ko gën a bëgg lu weesu yàlla ma yàlla mu ànd yi ma leen booleel koo ci woo digal ngir sa borom borom ma koy nanguloo koo ci digal ngir sa bakkan dong na bakkanam gàntuloo lu ngeen fi xanti woo di ko wut nag loolu aw yoog lu baax bu ngeen ko amee ba ab saay ab saay saay leen di ëppale loolu loolu sëñ Tuubaa ko baax rek laa bëgg ci fexe leen ba baax baax laa ba bëgg ci yéen ku ne ci lu baax ku mën a doon loolu la safaan jege jege jege jege jërta moytu jërta tiit te xoo koo jóg loolu sëñ Tuubaa ko yéen nag yéen a ci lu baax salaatam sax nañ leen yar ci ngeen juddu ci ngeen yar te sa baay day jiwriñam ji nga xam ne moom la gërëm na nga xam ne Cheikh Ibrahima defal sëñ bu ko mënoon def te koo kaa jiw waaw sa gërëm dafa lool sa yaay sëñ Touba gërëm waaye dama dama añaan waaw am solo lool Mbacke yàlla na fi ak téwér léegi nag nu déglu Serigne Saliou moom Cheikh Abdoulaye laxat mu sànni ci kaddu. waaw moom kat asalaamaaleykum wa rahmatullah kaddu yi de lu gàtt gàttal ndax Serigne Serigne Thierno wax na li ma ta wax lépp li ma wax it kenn mënu ci teg dara xanaa ñaanal leen rek ci seen taxawaay ci ci ci liggéey bi ngeen di liggéeyal sëriñ bi. ndax média bi ngeen di yëngu gisee ñi ngeen ci taxawiti ci liggéeyal Serigne Touba day ñaan lépp lu ngeen ci liggéeyal Serigne Touba Serigne Touba loola te ful leen yëkkati leen ba ngeen bokk ci média yi gën a kawe ci àdduna bi te lépp lu ngeen ci liggéeyal Serigne Touba Serigne Touba nangu loola ni ngeen taxawee ci màggal gi gis nañ noonu ngeen taxawee ci lépp lu jëm ci eh, mbirum Serigne Touba lépp jëm ci màggal yëpp gis nañ da ngeen bàyyi seen i yitte seen yëpp ñëw taxaw ko te gis nañ ne lu lu xaw a diis a diis lu xaw a jafe-jafe la waaye Serigne Touba jar na leen lool ñu ngi ñaan kon mu yokk leen te bokk ci ñi ñi nga xam si ne ñooy niti eh, média yi boppam yi nga xam si ne ñoo te lu di anwaar di asraar sëriñ bee matal mbiram yëpp barkeel jëfam atte na karaamaake xar baax ya